ci Sénégal ñu nemmeeku fi sëy yu bari ni muy gaaw a tase moo xam ci kër yi la wala sax yenn di dem ba ci tribunal ñi ñu taseel nag ñu ciy joxe seen xalaat léeg-léeg mbir gaaw ba sax mel ni contrat la ndax ñàkk expérience la wala sax dañ leen koo jàngalul. ndaxte boo xoolee sëy yu lan moo koy gën a yokk di ko indi doomu aadama yi léegi boo xoolee bu ñuy mayee seen i doom duñu xool en fond lan moo waral ñuy mayee seen doom ndaxte loolu lu baax la nga koy suivre ndaxte du question mat nga ko rek. ñu ne la da ngaa war a mun a takk soxna wala nii soxna boo demee boo koy dem bay def day fekk yow nga mat ko ak nga mën ko ndaxte jigéen ñi fu mu toll nii lan moo waral fu mu toll nii seen coono yooyu yëpp loolu moom moo koy waral ci kër yi. parents yi nga xam ne ñoom ñoo ñu meññ ñoo ñu gën a xam fa mbëggeel ne te sax ma la wax. noo bàyyi suñu cosaan parce que sunu maam yi sunu cosaan lan daan demee daawuñu am benn problème. tey jii day gis koo xam ne juddoo na Ndakaaru yaroon Ndakaaru pour mu dem ci dëkk ba sax man a xamante maam yi njëkkee duñ ko def am de amee na jigéen ñi séyetunu te góor ñi takkatunu waaw séyetunu parce que yow boo demee fenn say parents dugal fa mbala nga dem am sa yaakaar yow dugg fa góor gi woor la xam nga li ma la wax léegi yow boo accès bu la góor ñu xoolee léegi góor ñu dootuñu takk dañuy bëgg a ñëw rek xam noo mel jàll am na nañuy wax sax ne ak bëgg xaalis gu bari bokk na ci li koy waral nañ bëgg ngir sëy rek te yàlla tax bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu waaj yi moom mi ngi xamle ne yor jigéen danga koy mat man ko te am na ñoo xam ne dañ ciy dugg te mënuñu ko mi ngi ñaax waajur yi tamit ngir ñu bañ a forcer jigéen ñi ci sëy ndax li mën a jur bari na. yéen xale jigéen ñi nëbbatu nëbbatuñ xale góor yi xaalis lañ bëgg surtout Touba gi boo nee damay tukki ñu ne Modou Modou nga duñ xam nga am nga xam ne amoo bu nee moo lañ ko amee rek dañuy maye dem na ba seen problème yi téléphone yi ngeen di weer xaw mooy WhatsApp la ko moom li ngeen di li ngeen di am na ñoo xam ne ci la ñu ay ay jabar loolu mos am. loolu laa la xamal ne la nag fi mu nekk nii ñun ñi tam ci góor ñi ñun ñoo war a dimbale suñu suñu jigéen ñi ñoo war a dimbale suñu jigéen ñi pour ñu mën a sëy xam nga la am na benn euh, audio bu ma seetaan ca fan yee xale yi jigéen ñi danoo dajaloo yor benn euh, benn kaamil di jàng ay alxuraan xasaay di sëñ Tuubaa yi da wax naan jigéen ñi nañ dimbale sunu moroomi jigéen ñi ñu sëy parce que boo gisee ñu bari ci mbedd mi nii ñàkk a ko waral. bu dee ci góor ñi tamit li ma leen di conseil mooy ñu taxawu jigéen ñi bu baax yërëm leen maanaam di dox ci seen i àq bu baax a baax ndax jigéen yàlla da leen a teral bu baax a baax a baax. Euh, ku ci mel ni suñu yaay Mariama ak euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni bu ma leen doon lim yaakaar naa ni dinaa ci sori trop trop trop ñi ñaan góor ñi ñu leen di taxawu di leen jàppale bu baax a baax a baax ndax al ummu baabul baabul madrasa maanaam yaay mooy école ci moom ci lañ war a amee ay njaboot yu baax ba pare tamit góor ñi bu ñu takk maanaam ñuy taamu maanaam fu baax ndax maanaam nga soqee fu baax dinaa tax yàlla may la ci ay njaboot yu yu baax a baax a baax waaw bëggante bi tamit boo imaginer euh, day am ndaxte nit ki léeg sax ñu mayee sa mariage forcé yi mariage forcé yi tamit loolu tamit war nañ ko saytu bu baax a baax ndaxte loolu day indi erreur. ñenn ñi di joxuñ baaraamu tuuma soxna yi naan sëyu démb ak bu tey wuute na loolu ndax jigéen ñi dañoo fonk wujje wala sax ñu forcé leen may leen kuñ bëggul mooy waral tàqalikoo yu bari yi. waaw xam nga li problème bi mooy àddina bi fi ne dafa soppiku sa waaye ñun xale yi àdd ñun ñi xale yi tey ñun ñoo soppiku parce que gàcce ngaalaama sunu parents yi nga xam ne tey jii ñooñu meññi parce que ñun ñii danoo da ngay daan dem ci tool yi ñëw ñu la may nan la diw doo ci teg baat da ngay daal di def la nga xam ne moom la sey parents wax waaye fi mu ne góor ñi tàkkatunu jigéen ñi sëyatunu ndax tey jii boo ñëwee tey ñu la may nan la Basirou mais muy man da ngay daal ne man joxe naa sama xol ba noppi. ndax diw dama daan jëndal ay portable dama jëndal mèche dama xottil kon mënuma ko wor léegi yow boo demee foofu ñaari fan ñett diw moomu dana la wor parce que sunu ndey yi nga xam ne ñoom ñoo ñu yor meññ ñu ñoo ñu gën a xam xamala fa gën parce que ñoom ci ndey yi lañ daan xool te xamala ma la ci ndey yi lañ daan xool kii ndeyam ku baax la waaw ndeyam seykat la. dafa am ñoo xam ni lenn moo leen di tax a divorcé muy maanaam am na ñoo xam ni wujje moo leen di tax te wujje boobu dafa nekk loo xam ni digalu suñu borom tabaaraka wa taala la ndax boo demee ci suratu nisaa yi ma ngay wax ni fankihu maa taaba lakum mina nisaa'i masna wa sa war rubaa na ngeen takk lu leen soob ci jigéen ñi benn ñaar ñett ba ñeent kon loolu ndigal suñu borom tabaaraka wa taala la ñu am ñoo xam ne nag ci jigéen ñi bu góor ñi jëfee leen ci ndigal yooyu mooy waral seeni i tàqalikoo bu nekkee ci beneen côté bi la tamit day dem si parents yi ndax parents yi des fois seen i seen doom ñi dañuy nekk di bëggante ak ñeneen ñoom ñu soit dem may leen keneen koo xam ni nekkul ni moom la ndaw soo su bëggantee bëgganteeloon loolu tamit jàpp naa ni mën na indi divorcé ci sëy ak lu mënti xew way dencante yi nañ bëggante ak wóolante ba ci sax yërëmante bokk na ci liy dëgëral sëy yi.